aleykum ñëwoon démb tey indil na leen ba émission bi dooree ba tey plus jeune invité loolu dana ci kontaan parce que moom d'ailleurs yàgg na dégg plus jeune même équipe ba mu nekkoon moo ci nekkoon plus jeune li ki indi nag moo di actualité xam nga ñu ngay waxtaane les lions du foot football féminin la ñuy waxtaane tey football féminin nekk ci programme bu international ci yoonu programme bu international bu ko war yóbbu en phase finale de coupe d'Afrique ma ni kon bokk émission bi waa football féminin ñoo ko moom parce que ñoom ñoo dajeek actualité bi te su ma duggee ci néegu football féminin euh, dal na ci ku nga xame ni Oumar Dia daan na ma wax sama confrère ba ca RTS li ngay wax ci Roger Mendy gis naa xale bu jigéen bu mel naka moom demal seeti ko plus jeune yàgg na ko dégg parce que avant les années 80 fekk na football féminin di sañ ci dëgg ñu ngi door 72 Ndew Ñang Anta Anta Baro Mary Ñang jaar na fi moom moo doon ci équipe boobu nekkoon la plus jeune et tey jii bu football féminin tollee fii ma ni que dama lay indi su ngeen ko xoolee da ngeen bëgg sport parce que sport dafay maintenir ba léegi sama invité bi Madeleine Ndoye soo ko xoolee su bëgg ko football loo Madeleine dama lay bàyyi nga nuyu nag waa HLM ak nag doomu ndar yi lay déglu parce que <laughs> parce que yow Dakar waas nga doomu ndar dëgg la dëgg ah, nuyu leen ñu waxtaane liy actualité football féminin bi nga xam ne mi ngi ci programme dëgg la maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ku ne maa ngi nuyu seen sa tur sa sant di wax tey dama ñëw invitation ab lay Diaw parce que lii tamit lu ma gënaloon la bu yàgg ma yàlla mi ngi koy soog a dogal di gërëm waa HLM fi ma dëkk sa liberté 6 sama dëkkukaay la HLM sama dëkkukaay la di gërëm tam surtout Elliot Xuma ndax lépp moom moo ko waral. Mhm. waaw moo waral lii parce que depuis ma nekk euh, xale la ma jël yóbbu ma ci boppam. parce que lii yëpp Elliot la. Elliot su ma jëloon di ma def too lu bon kon tey du ma egsi fii. toujours rek Elliot mu ngi defal lu baax toppatoo ndax yéen a ngi. ñibbi normal seen kër ndax yéen a ngi def lii yéen a ngi def laa seen yaay ñu ngi leen di yónni ngay lu ne daal mun daal mënu ma wax. Eh papa la woon papa la woon papa la yaay la nijaay la maam la lépp la. <laughs> te ba pare yar ñu fu ñu war a yaree. Mm-hmm. Elliot lum ñu tere ñu bàyyi. Mm-hmm. lum ñu sant ñu def lum ñu sant ñu def dañ daan football yi sax du ñu añ. Mm-hmm. deux heures. mu da ngeen dem jouer ji ba ñëw soog a añ. dañuy dem jouer ji ba ñëw soog a añ te dañuy gagné. Mmh. parce que moo ko defoon ci ñun. Mmh. dolli ñu fit nag bëgguñu kenn ku ñu laal. ku ñu laal mu dal sa kaw. ku ñu xulool mu dal sa kaw. comme Elliot waroon nañ ko waroon na dépasser fii quoi. parce que tamit euh, laay liñ naan lu sotti am borom. wax nga dëgg. waaw lu sotti am borom. wax nga lépp rek Elliott la. su ñu nee football Sénégal Elliott moo tax mu am. Mhm. soo Elliott du fe du am. wax nga dëgg kon waruñu bàyyi ba lépp sotti ñu écarté ko ñoom. jël lépp aaki moo ko. Mhm. dafa ñaaw wax nga dëgg. moo tax du baax rek quoi du ñu dem. <laughs> non du dem du ñu dem du ñu dem yaa ngi may rappelé Way Goy Ndiaye. dama ko seetaan barki démb ci benn émission lii la wax. mu ni football bi dafa amul yërmande. dëgg la moo tax du gaaw réussir. effectivement alors gaa ñi leen Ndoye. Hmm. moom la Oumar Dia daan wax Roger Mendy du jigéen li Roger di def ci góor ñi la daan def ci jigéen ñi Madeleine noo ñëwee football féminin. footballu mbedd di foo yor sol ay plastique di ànd ak góor ñi di foo ba jour am benn sama benn dëkkandoo ne ma dafa am benn club bu nekk Sacré-Cœur mhm. ñuy wax Gazelle dama la fa bëgg a yóbbu ma kontaan ko sama yaay sama yaay commencé bañ xam nga rek ah, jigéen sama yaay commencé bañ par la suite suma tamit ànd ak man ci loolu mhm. dañu demee mu ma entraînement ma gis tamit Elliot tamit jël ma ma gën fa tuuti mu def ma comme doomam bu mhm. nekk sama lépp noonu laa def def def ba nekk ci équipe bi Elliot nag moo ma yóbbu France Monaco moo a yóbbu Italie moo ma yóbbu Côte fu dëkk bu ne dem naa fa mhm. grâce que à moom mhm. te mënoon naa mën li may mën mu bàyyi ma fi mhm. mais lu ma gën a ndaw dem naa ba période boo xam ne ñuy dem sama ka aw ma sax pour am carte d'identité mais jax Elliot dugg na génn rek créer na ba lijjantil ma carte d'identité ma mën a dem xam nga ah. kon nag man du ma def lu dul di ko gërëm rek di ko gërëm noonu laa def di football ba benn yàlla def benn année jot ma xaw a am ak ñoom jàppante problème bu ndaw dem Tigres ma jugee Tigres ma ñëwaat Gazelle. Mhm. ba sama fin carrière ma def ko Panthère benn année. Mhm. après ci laa bàyyi football nekk fa coach. Mhm. après ci laa arrêté. ci nga arrêté mais dama bëggoon Elliot tamit. Euh, lépp lu mu bëgg rek man mat leen su ma woo dama ci ànd ak bi ma invité dama ko woo da nga ma woo rek ma woo ko téléphone. ndeysaan parce que ci plan football mu neex ak mu naqadi. wax nga dëgg Elliot. Euh, ni ñu ma ma ni maa ngi kii sax Elliot. Hmm. toll na foo tollukaay euh, dem na ba toll foo xam ni lépp lu ñu war a def rek dañ ci war a dugal Elliot. wax nga dëgg oh, parce que liñ naan. lu wa lépp lu sorti waaw comme li ma waxoon sànq rek lu sorti mun ma sax wax sama sama xol dafay jeex parce que dañ ko defee noo xam ne du nii du nii parce que lépp même élection doon woo équipe nationale sax naan ko demal nga dagate kayit waaye ngay fóot kawas yi sax dañ ko war a boole ci loolu wax nga dëgg effectivement te équipe pour man équipe euh, équipe jigéen jigéen moo ko wan a yor góor mun góor waaw je la question de savoir ci yéen sa génération waaw ñan ñoo ci préparé wu pour li jigéen di def ci équipe bu lu li góor di def ci équipe bu jigéen ñu dénk ko jigéen parce que ci l'as dit tout à l'heure effectivement li jigéen mën ci moroomu jigéenam góor mënu ko. mënu ko xëy na loolu. affaire ñenn ñoo ñenn ñoo pare. Aïcha Henriette Ndiaye pare na. Aïcha Henriette Ndiaye. Henriette Ndiaye nekkoon na fi ñoo footballandoo Gazelle nekkoon na fi cap 2002 moo newoon capitaine wu équipe nationale. Mm-hmm. waaw man local bi maa woon capitaine. après moom bi ñu defee sélection euh, euh, euh, nationale régionale après moom ci la nekk. Mm-hmm. capitaine. Mm-hmm. mais moom am na dafa dem ba Allemagne jàngi ba am kayitam mais na nga équipe bi laay parce que depuis 2002 mënuñu de am dara mënuñu dem fenn. Mhm. même su ko ko joxul ko ciw ku góor na jiite. ay jigéen topp ci ci ginnaaw mhm. mais da ngay gis Nigéria Ghana Burkina équipe bi football féminin jigéen yëpp jigéen moo leen yor. ah lu tax ñun mënuñu yor équipe jigéen. yor ko. yaa ngi rappelé say partenaires wu première équipe bu Gazelle yi ñan nga ciy nekkandoo lool Gazelle. Maymouna Ndiaye. Diarra Diagne Kumba Diongu Louise Mendy Méri Ña Anta Baro Mbew Ña euh, dem si yàlla si Ami Tabouré mhm. Ndeye Marie Sey euh, Binta Camara mhm. suma ma limee damay jub xam nga kuñ daan wax bekkan ba wër ci yéen est-ce que du Madeleine Morono bekkan ba wër am na amoon na ci jigéen ñi kuy taan wax bekkan ba wër noonu def Simone Simone. Simone Sey effectivement Simone Ndeye Marie Sey. waaw Ndeye Marie Sey lañ ko doon wax. waaw waaw ñoom tamit ñu nekk ci équipe bi nekk ay mbag. mbag mhm. tamit ñu neex a jël ñu jiital ñu def ñu seen rakk def ñu seen doom. Mhm. lu ñu neex neex na leen lu ñu naqari naqari leen. Mhm. dañoo daj euh, Omar. actuel euh, ay actuellement li am football féminin ak bu njëkk bu amoon du benn. amul woon amul woon. parce que léegi jëlatuñu yoonu football féminin jamono bii. yoonu ci lu def leen neex la parce que amatuñu ku ñu ragal affaire sax du sax ragal. yéen yéen ñi leen daan entraîné da ngeen leen ragaloon. non ay parents. dañu leen defoon comme papa ju ñu jur. waaw muy Elliot. waaw même suñu defee lu ñu metti sax dañuy laaxaf ci roq jooy ko duñ ko ko war. duñ ko wan ñun mer nañu. te suñu ñu meree ci la ñuy gën a doon gaynde. dañuy teg ku léegi ne final la Elliot ñëw saako ñun ñëpp ay ndey ba ñu tooy ñu làqatu jooy sël mu dem stade ba ne leen. duñ ko duñ ko tontu duñ ko saaga duñ ko def lu ko metti liñ koy faje mooy jël ko bi ñëw jox ko ko mhm. kese mooy garab gi dana la ko doon defee dañuy dem gañe ñëw jox ko fu muy gën a méttee boobu Elioto mu ngi si diggu ndëndëm léegi dafa magal mhm. mu nekk si diggu ndëndëm dëgg mhm. daaw ñu siggi xool ko que ñu yaroon ndeysaan parce que ñu yoroon ba pare yar ñu ci yar di julli dañ daan woor Elioto lu ñu non dañ daan gis a daw su ngeen ko mos a gis da ngeen di dañuy toog entraînement nii di waxtaan avant ñu sos suñu équipement mais suñu déggee bruit moto mais doo xam sax nooy solee kawas yi <laughs> mais loolu moo amatul fii tëdd nañ sax laay ci peron. fanaan dem di groupement fanaan ci nañ ci biir oto dañuy dem ba ci biir àll ba paan. te loolu ne waa leen weer yëpp tëdd ci oto bi ba fajar. fees kay. lu ñu dem si oto bi waaye yow kii moo ñu moom ba du jëm kaw. dañuy jëm ci suuf xuntu rek li mu wax di ngeen ko def te lañ koy def. parce que suñu kilifa la woon. parce que forcé demoon na ba dafa moomoon dafa jëloon suñu maay nu yaay yëpp ak suñu papa yi lu mu wax la ñuy gëm. waay waay Eliott laay dañuy dañuy nekk entraînement huit heures normalement ku dem war na la fekk sa huit heures ci. ci guddi ci guddi waaw. suñu paree entraînement sept heures. waaw suñu jàkk noddee rek. waaw dañuy si mais ku changé wu ñibbi nañu. Mhm. mais taal na motoom ku ne dem na sa kër. seet seet ndax ñibbi nga. effectivement ban heure la ñëw sama yaay ne ah new na ay dix huit heures ay ah, vingt vingt une heures kii ne ay vingt deux heures non depuis sept heures laa ko bàyyi fu mu ne moo fa yàggal boppam. daf ñu toppoon. dafa daan ñëw dans la famille. barki Mouhamed barki Serigne Babacar daf ñu daan topp koom doom ji mu jur. est-ce que. bëgguñu. Mhm. mais actuellement ni loolu moo amatul ci jamono ji football féminin dafa yàqu waaw dafay yàqu yéen famille ngeen woon ñun famille la ñu woon ñu bokkoon ndey ak baay ba léegi nii kon ñi mat leen waxtaane euh, tout à l'heure benn groupe a ngi nii Gazelle municipalité bu année 1980 mat leen moo euh, jonkan nii ci seen gauche euh, jonkan ci kanamu entraîneur bi di Eliott Xuma moom ci gauche di Fat Fall Euh, ka ca topp di euh, Mama Diaby ki topp ci Mama Diaby di Awa Diop Awa Diop mi nag football xam naa ni mag yi daanaka nag entraîné mag yi nekkoon na Ousmane Diop latéralu euh, équipe nationale Sénégal def na d'ailleurs 2000 Awa Diop rakk la ci Ousmane Diop ci wetu Awa Diop di Diarra Diagne ki topp ci Diarra di Madeleine Moreno kooku nag nekk ci extrême euh, droite bi ci seen droite mënoon naa ci organiser jeu concours kii moom mënoon naa ci organiser jeu concours ah su ma leen ne kii kan la di ngeen ko xool xëy na kanam gi dana leen familier c'est l'actuel premier ministre du Sénégal di Mimi Touré xam nga su ngeen di wax dégg Mimi di wax naan on va accélérer la cadence fii la ko jëlee fii dafa daan accélérer cadence bi de boobu temps latéral la bu weex di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc mooy accélérer cadence bi ngeen dégg ci moom te muy dëgg mu ko daan def na ci terrain football et comme athlète la woon pour accélérer cadence yomb na ci moom trop kon Mimi Touré ngeen janool ni euh, à genoux euh, sur votre droite du temps des gazelles année 1980 ñi taxaw Euh, entraîneur bi moo taxaw noonu Eliott Khouma le père du foot féminin ka ca topp di may Maymouna Ndiaye euh, ka topp ci may Maymouna di Anta Thiam Louise Mendy mooy fii gardien de but en de gardien Anta Baro moom tamit ku yàgg ci équipe bi la elle vit aux États-Unis de depuis de longues années Anna Gomis nekk noonu ci wetu Anta Baro euh, ki ci topp di Seyni Euh, euh, Diouf euh, kooku ci assistant yi nekkoon aussi entreneur nekkoon mook Elliot ak Edouard ñuy bàyyi football féminin di Jo Anan nekkoon professeur ci collège sacré kon benn groupe bu gazelle ngi nii ñu ànd ci ak Madeleine Ndoye mi nga xam ni moo di suñu invité tey fii tamit beneen équipe la ah Elliot moo nekk nii à gauche en chemise blanche pantalon noir Euh, leen Ndoye di suñu invité mu nekk nële ci seen euh, droite ci photo bi à l'extrême gauche nekk yéen ci seen euh, droite ba tey ci année yi nga xamee ni football féminin gis ngeen ni mu daan attirer le public ici c'est à Ibamar on se bousculait parce que boobu temps xale yi mën nañu football vingt ans trente ans après bu ñuy waxtaanee football féminin ñii am ci cër te gis nga photo bi su ma leen nee am na trente ngeen xool Madeleine Ndoye mii toog ci studio bi di nuru encore xaleel ngeen gëm ni sport dafay conserver nit ki waaw parce que Madeleine mii ak Madeleine mi ci studio bi presque wute wuñu moo tin 30 ans dox na ci diggante ñaari image yi. boobu xale bu ndaw laa motuma sax am lissance parce que temps yooyu sa licence amul feuille de match rek ngay wane. football dama daan dugg ci stade bi ñëpp ne waa xale bu ndaw bi moom lu muy def ci équipe bi. waaw mais su ma duggee non may faj boobu gàcce yi <laughs> non si. te dégg naa. Ah. mës na mës naa am kunima tu défendais bien. Mm-hmm. waaw en waaw tu défendais bien libéro bu baax waaw. mais boo tee adversaire bi marqué. Ah. dañ lay provoqué xeex loolu parce que ku loo xeex rek daañu la génne. effectivement parce que dama leen daan sonal attaquant hmm. danaa daan football laay cinquante match du ma encaissé te sama góol du encaissé. wax lii su la nga toog wala nga lambasal tëdd. def match sans but. sans but plusieurs matchs. lu oh, mat ay cinquante. kenn du la dugal kenn du la dugal kenn. man wax ni góol bi jëlal mbasang nga tëdd dëggal nga tëdd dafa lu la neex hmm? bal du kenn romb non du ñu ñëw parce que am dama jëloon seen fit dama jëloon seen fit <laughs> adversaire yi ma dama leen daan non présentation laa jël seen fit ñun ñëpp noo daan def présentation ñàngal bii nga ñëw nuyu ma ma bës sa loxo xam nga daf ko yëfu wëy yooyu <laughs> mais gis nga daal dinaa <laughs> football cinquante match du ma dugal kenn du ma kenn man. si axe bi bi. Mm-hmm. ba dañu dem ba attaquant yi dañu xam loolu ci man ragal léegi suñ ko defee suñ nekkee si match bu metti entraîneur bi danaan attaquant bi jëm ko dóor mat leen dooy dóor ko day fayu tàng xol la ñu rouge ko mu génn su génnee dañu am but ndax tànk mi ngi foofu duñu dugal but hmm? waaw su ko defee. attaque euh, entraîneur bi wax ko jour bi jour bi dóor nga fayu non du ma fayu nii nii dafay dóor su door yi xaw a kii ma xaw a catu du ma gis arbitre bi ñëw rek ma fayu mais bis bi lay génnee at bi def la bett ngay ma bett effectivement parce que dafa ma dóor femme bi dafa ma dóor jusque mu doon coup franc. Mhm. ma ngay teg di dégager bal bi. ma tourné nii mu nekk sama wet rek ma dóor nag may dóor arbitre baa ngi gestu. gis la jox ma rouge bi bi ma jox rouge man fekk damm naa. ci biir dama boobu maa ngi. ci action boobu da nga ci gaañ que ba may dugg courant bi sama tànk dafa lemoon ba Iba Maar pax li bëri yi. waaw ñuy suul bi sama tànk lemoon nag damm na. man comme tànk bi la ñu nekk noonu. man sentir ma ko parce que yëgu ma ko. man xadar laa am bu metti la woon. effectivement. Mhm. bi ma jógee rek dóor gel bi. at bi jox ma rouge. ak ni ma gars yi taxaw naa loolu génn chose yi patati expliqué wax et l'autre cas saaga xam nga instant bi ma taxawee sama yaram xaw a sedd. Mhm. ma gis nag sama tànk bi. néew yi néew yi. Mm-hmm. dañu mujj xar crampon bi. Mm-hmm. pour génne sama tànk. laay effectivement. dafa néew woon. loolu nag mu mayoon santé encore laay su may joué ak yow nañu bokk ndey ak baay xamuma la man musuma la gis dañuy football quoi. Mm-hmm. ñu paree ñu nekk <laughs> ay waay. man loolu laa xamoon quoi. man léegi gis naa benn photo. curieusement match boobu da nga góolu. waaw dama góolu parce que dañu dem France. ah France waaw Monaco bi ñu demee am mu góolu. ma ne Elliot bàyyi ma góol Elliot ne ma non looy wax ni. tournoi la woon tournoi la woon international. Elliot bàyyi ma góol mun ma non mat leen looy wax ni man ko si bàyyi ma góol parce que ñun ñëpp benn lañu suñu gagné day métti suñu suñu gagné day neex. te man wóolu naa sama bopp bàyyi ma dem. ñu ne ma góolu ñu dem góolu ma génn ci ñu gagné. arrêté nga sax penalty. effectivement penalty bi deuxième match bi la. ah deuxième match bi waaw deuxième match bi. comment da nga jël tournoi bi yëpp yaa ko presque. parce que benn yoon laa ci football quoi benn yoon laa joué. deuxième match bi nga góolu deuxième match troisième match ci non deuxième match la arrêté penalty parce que ñu woon suñu gagné tey dañuy ñibbi si waat Sénégal suñu gagné ñun dañuy. da ngeen di dañuy qualifié continuer ñu dem ñu ñu mëne ñu ñu mëne ñu 1 na ko 1-1 Monaco. waaw égaliser 1-1 ju boobu ndaw ñaa mooy dugal xam nga ñu égaliser 1-1 dem série ah, ñu dóor ñu dóor des dugal. gagné. dugal gagné jàpp waaw moom su dugalee qualifié yow boo jàppee ngeen qualifié. qualifié ñoom mairie ñaa ñoom ndew ñaa ñoom ñëpp topp ma mat leen jàpp ko nañ la may lii nañ la may xaalis soo paree dañ la may lii man leen amul problème <laughs> mais ay non Elliot bu njëkk a daw. ah bi ma naawee ba jàpp bal bi. waaw non Elliot dafa daw. <laughs> day boobu dafa neex. ah oui tey avant ñuy dem. ñi añ. Elliot kaay lekk mu noonu lekk. lu tax mu ne noonu match bi rek. lay xalaat. kon da nga ñëw lekk lekkal yëpp di ñëw lekkal lekkal nii mun a lekk lekkul. ndeysaan réaction machine moo ko jàll si si bi ma gañee jus boobu non waxuma la lekk sax mais plat yi des di moo moom lañ ko jox <laughs> décidé moo ko lekk mat leen ndooy laa leen indil gis ngeen ni sport baaxee xale bu tuuti soo ko gisee ni tey ji moo tin au milieu des années 80 euh, jëm 90 mi ngi ci euh, équipe bu euh, football féminin bi nga xamee ni ñoo doon les pionnières ku joué ndoog ñoom Ndew Ñang ñoom Mairie ñooñu Anta Baro ku joué ndoog ñoom Euh, defe naa ni euh, am nga am nga vécu euh, léegi bi ñu jëmee ci actualité bi di waajal match international bi ñu jëm ma ni damay dugg ci néegu football féminin jël fa ci xale yi kenn waaw c'est la plus jeune lionne du football de tous les temps Madeleine bi nga ñu équipe nationale en 2002. Mhm. xale bi tuuti nga dégg. est-ce que ñëwuloo avant 2002. non 2002 la Sénégal njëkk a formé. ah d'accord équipe nationale. équipe nationale année bi ñu ko njëkkee formé. première équipe nationale ba yaa ngi ci. effectivement maa ngi ci. boobu ko la ñu woon comme entraîneur. Euh, Salam Lam. Salam Lam Salam Lam Assane Kara nekk adjoint boobu temps yooyu kii moo fa nekkoon euh, Françoise. Françoise Seck. Seck ah d'accord effectivement. Ah, Françoise Seck pas madame Koulibaly quoi Françoise Seck moo fa nekkoon waaw mais euh, Omar damay kaa laay. Hmm. damay kaas ci loolu. Hmm. parce que alaay lu tax euh, toujours. Mmh. équipe nationale du dem. Mmh. du dem. équipe nationale nga ni du du dem lu tax du dem mooy li ñu war a def lañ deful. lu ñu war a def. ñi ñu war a yóbbu lañ fi bàyyi yóbbu ñu warul dem. ñi ñu war a yóbbu lan ci encadrement bi wala ci sélection bi. sélection bi sélection bi war a dem. Ah. demul ñu warul dem ñoo dem. tu trouves que la sélection est mal faite. effectivement te chaque jour noonu lay demee. Ah. ci naka mooy. dañuy jël exemple ne xale yi. Hmm. effectivement football xale moo koy def sport xale moo koy def. mais mag ci am njëriñ. waaw la koy def mais mag ci am njëriñ. am parce que équipe boo gis am na mag wala ana hmm. Drogba. Hmm, Drogba mais mais génération ñu la nga dëgg. mais ba léegi ñu football. ana Koudou Touré. oui oui. ay mais ba léegi ñu football. mais koon ana Siré Dia bu jaraaf. bu jaraaf mais. loolu mooy wane ni équipe fu mu jaar am mag su amul mag du dem. man mun ma concevoir nga ni exemple Awa Seck mag la Awa Seck maa ko mag te Awa Seck lu mu mën xale yi mënuñu ko. mi ngi joué nekkoon maam moom. moo nekk Thiès Grèce. waaw dañ ko teg ban te ko su ma juumulee dañ ko woo pare. Mm-hmm. dañ ko pare woowaat ko su ma juumulee wala mu wala mu teg ko ban parce ma su ko maa ngi foog mais dañuy jouer di jouer Sénégal jaaxle amul bi mais Awa Seck dafa dugg. Mhm. changé match bi dugal paas. Mhm. gars yi ci kaw ci kaw mag la. Mhm. non man gawuma lool. te tant que ñoom ñu ngi équipe bi. waaw la équipe bi du dem. ma la wax léegi da ngaa ma du dem man la du dem. Euh, il y a tey jii près de trente waaw. Euh, bi ngeen arrêté da ngeen détourné wu. bàyyi équipe bu léegi sax la club yi gën a bare. effectivement mais euh, xam nga su ngeen milité am loo yow par exemple milité woo ci benn club en ce moment. dëgg la léegi pour ñëw en équipe nationale foog nga jaar ci club. dëgg la. préparé wu. Mhm. jox nga ma turu kenn koo xam ne. Aïcha Henriette Ndiaye Aïcha Henriette Ndiaye. elle est peut-être seule. waaw moom kese la. waaw comme laa la wax ni la. foog ngeen def nag lu tax yéen jigéen ñi yéen ñi jëkk joué da ngeen di dellu si jël équipe. non si yoroon naa comme ni ma la expliqué sànq. est-ce ngeen amical comme ni ko basketteuses yi defee. amical. amical ou amical des anciennes footballeuses. mais si si ñu ngi. am ngeen am ngeen vie vie d'association. chaque jour ñu ngi gisee suñu gisee dañuy gisante. ñuy déggante chaque jour. suñu nekk dañuy nekk chaque jour. seen parce que pour jël. Mhm. football féminin bi. Mhm. yéen jigéen ñi jëkk football. Mhm. foo ngeen organiser wu. waaw effectivement ñu ngi wu. xam nga mm. ba mu ngi nii sama dernière carrière dama ko passe dama ko def Panthère benn année après ma nekk foo coach joué nga Tigres ak Panthère joué naa Tigres joué naa Panthère Panthère mooy Thiès Thiès Tigres mooy mooy euh, Dakar Dakar waaw loolu amee ci la euh, sama dernière carrière laa ko def Panthère mm-hmm. après ci laa bàyyi nekk coach ci foofu mm-hmm. ba après Elliot Souleymane dama bëgg defaraat gazelle ma ne ko man ne mais soo defaatee gazelle damay bàyyi panthère ñëw gazelle. parce que mooy sa équipe. effectivement te mag nga su boobaa da jël lépp teg ko suñu loxo nga dem toog yow fekkee lu am lu la war rek def ko. Mm-hmm. nga seetaan ñu. ci laa jël ay Aïcha Ndiaye bi ma la wax tamit gazelle ñëw football do am na jot am naa jot xëy na ñeneen ñi amuñu jot ma ne Aïcha Elliot de waxtaan nañu pour ma jël équipe bi mais comme yow yaa am kayit dama lay jiital. topp sa mm-hmm. ginnaaw. Mm-hmm. parce que fi soo amee soxor rek laay du dem. dañuy yemale parce que ay Aïcha Ndiaye nekk entraîneur ma nekk adjoint mais ñun ñëpp ay wax nga dëgg du def lu ma ëmb man du ma def lu ko ëmb wax nga dëgg kon organiser wu leen rek ay ñëw waay kon Eliette Xuma mi Madeleine Ndoye di waxtaane moom janool nii nekkoon lépp ci ñoom na Madeleine nee seen papa la seen yaay la seen lépp la dañ ko sax ragaloon ndax euh, kilifteefam euh, dafa daan dem ba ci biir njaboot gi di seeti papa xale seeti yaayu xale yi Eliette Xuma ban témoignage ngay def ci Madeleine Ndoye mi nga xame ni danga koy yar mu nekk sa joueuse nga génn ak moom tukkindoog moom dem fu nekk. jërëjëf euh, lay mat leen day boo ma laajee ci moom war naa la ci war mën a wax lu bari parce que mat leen doy joueuse la boo xam ne lépp la doon def ni ñoom Rose daan def mat leen doy daf koy def dañuy dóor bal ba ñëpp tiit mat leen teg ko ci dënn bi wàcce ko amorcer attaque boo manqué góol mat la na góolu des fois mu dem ne bàyyi leen ma ma dem ci attaque bi te bu demee ci attaque bi dana fi indi problème ba marqué donc mat leen dooy daal joueuse la boo xam ne phénomène la daal phénomène la woon daal yow yóbbu nga ko Milan dem ngeen Côte d'Ivoire yëg naa ni partout am na fa ay proposition pour des fa yaa bañoon. waaw fu nekk yóbbu naa ko fa mooy Monaco Anot Nice skan mooy sunu tournoi yooyu ñu doon def itali Rome ba Sicile. Calabria Taormina yëpp mais mat de ndóoy ku nekk koy laaj pour soxla woon ko ma ne leen kii foog mu dellu ba këram ku ko soxla leneen xanaa mu dem ba këram nga woo ko wax waa këram ñu mën ci assister pour mu mën ñëw mais mat leen dooy joueuse la boo xam ne mënoon na jouer ci n'importe quelle équipe ci monde bi mhm. waaw équipe féminine de football mhm. ci monde bi mënoon na jouer ci équipe yëpp Madeleine Ndoye jërëjëf waaw léegi Madeleine Ndoye mhm. suñuy tàggoo tëj émission bi lan moo la ñor nga bëggoon ko wax ma bañ nga ni c'est dommage que lay jaw laaju laajuma lii. Mhm. loo xam ne bëggoon nga ko wax te laajuma la ko balaa ñuy tàggoo. Elior rek dugal ko ci staff bi Elior da nga war dugg ci staff équipe nationale ñun jigéen ñi dañu war a tànn ci ay deux wala trois dugg ci staff équipe nationale. tant que loolu amul équipe nationale du dem fenn du gagné parce que àq la laay. Mhm. àq la mënoo jël sa ku yar ko ba mu màgg kenn bëgg ko jëriñoo mais. Mhm. du sotti. dañu wax dëgg. wax ah, nga dëgg wax ah, nga dëgg loolu amul lu ma ciy sànni rek quoi. <laughs> Madeleine Ndoye hmm. euh, bu ngeen di seet la plus jeune lionne de tous les temps en équipe nationale bu yeboo ngeen ñëw nii moom la wan naa ko tout à l'heure benn photo bu nga xamee ni moo ko Mimi Touré nii premier ministre ñoo nekk ci équipe ba te miinu ko tu m'as dit que miinu miinu parce que boobu da nga di xaleel waaw effectivement ñoo bokk benn ko di xaleel nag moo tax miinu ko kon ngeen xam ni euh, teel na football Euh, Madeleine laa leen indiloon di defaale actualité ci euh, yoon wi nga xam ni Lions yi dañ ci nekk ci yoonu Coupe d'Afrique bi nga xam ni daf leen war qualifié ci phase finale jërëjëf merci d'avoir choisi ñëwoon démb Madeleine Ndoye jërëjëfati. merci la di ñàkk nga dellu si fi. pour reparler de l'équipe nationale. c'est possible dëgg la dëgg la mbokki ñëwoon démb. Mm.